Tikine, 20 km. Il faut 1 milliard le kilomètre, il a fait 1 milliard 122 milliards. Il faut gérer autour Abidjan, 1 milliard 3 le kilomètre, 26 milliards. Il faut gérer, bien que mon mot gagne, à cause des conditions, il m'a de relief ak sen standard aussi il faut le dire mu nek lo nga xamni li gëna jafé la si condition yi ma wax fofu kilomètre bi 2 milliards 3 lay jar way way so jëlé ñoo nga xam ñoo defon autoroute so leen andi won fi suñu bokkon wala nga ki leen y compris entreprise marocaine bi ci bokkon su fekkon ni laaj nañ ko jëgëm wala keneen ki 2 milliards 3 fois 20 km, ça fait 46 milliards. Donc, sa base de sélection moo doon ku cher cher soo 46 milliards yo nga xam ya koy wuti ñëw liggéey liggéey bi exploité entre 20 et 30 ans jox ñu suñu au final à la fin de la journée comme on dit lan mo xew dañ ni Eiffage yow la ñu jël première chose Eiffage ni affaire bi 150 milliards lay jar damay arrondir rek pour à 2 milliards 148 milliards exactement te kooku moy tontu bi nek ci këyit di nga xamni ñom ñomako tontu ñoko tontul seen bop ñonu 20 km travaux yi rek travaux yi rek leneen bokku ci du libération des emprises indemnisation yi fay ñi fi nekkoon du yeneen yu sew yeb dara bokku ci liggéey bi rek 148 milliards pour 20 km, muy. 7 milliards 4 le kilomètre. ñee bu ñu 2 milliards cher 1 milliard si yow kilomètre de 7 milliards. Wow, mais l'autre sax que nous avons 7 milliards de kilomètres. mais nous avons leen 50 milliards 40 46 milliards Nous avons wax arrondir 50 luy 50 milliards Qui est dans la ko 150 milliards nga d'accord première anomalie parce que si on que affaire on mu exploité. 150 milliards yi mu wax ni mom lay jar 50 milliards yi la ci def am ci bénéfice 100 milliards mo def ko ci poche am ni nak légui bala mo fi jógee damay récupérer lima fi defone 150 milliards récupérer sama bénéfice c'est-à-dire bénéfice sur 150 milliards li jar 50 milliards nga jaayé ko 150 milliards yow bo jotee 150 milliards yooyu da ngay jël 100 milliards déjà mu nek bénéfice nga duggal sa poche ba paré nga jël 50 milliards yi nga xamné mom moy tabaxé ba paré togaat fi liggéey pour wàccoog sa 150 milliards ak liñ ci teg comme bénéfice. loolu moo xew si autoroute bi sénégalais yi xam ko yamul foofu papa Alé yamul foofu déjà lii rek ku ko dégg nga xam affaire bi nekk sénégalais voilà nekk sénégalais mu xam ni sa yëf la te yaay continuer di di jaar si autoroute di fay ay péage say doom di fay say say sët di ay péage te fekk nii la demee soo ko xamee ça y est, si autoroute bi sa xel sa sa xol donc problème bi c'est pas un problème ay éclairage ay grillage ay non c'est pas ça le problème le problème est plus profond. le premier scandale c'est ça le premier scandale c'est ça. mais yamul foofu au lieu moom ni mu ko waxe mu dem lebi li wax ni mom moo. 150 milliards dem lebi ko def ko si dem jeli ko dani sax tout compte fait yéen Sénégal ñaata ngeen am il faut ngeen participer. te au début cahier de charge bi dañ ne won yow yay wuti xaliss ñëw def moy principe beauty lolu moy principe bi su amé ay kii tamit man nañ la defal ay subvention pour ay exonération fi ay kii yoyu ay mokay encadré mais principe bi mooy loolu moom la bind sax clairement premier qui bi a pour objectif de concevoir financer construire exploiter ce sont les termes écrits noir sur blanc yoyep document yaa ngi fi donc kooku ni 150 milliards lui jar 50. même si fekkoon daf ko jëli ñëw nous ko nax na la départ mais yamul fofu comme ni mako ko dafa ni la il faut que yow finalement il faut nga euh, euh, participer ñaata nga yor Sénégal ni yor 37 milliards sama poste sama budget mu ni ko doyul ñu dem 50 milliards AFD ak Banque africaine de développement 87 muy 87 milliards. mu ne waa léegi kon man ngeen ma jox ma téye ñu jël 80 nga xam bu daaj si poche bi. nii leen nag comme 148 milliards mooy 150 yi ma wax des na 61 milliards loolu nag mooy sama participation. kon kay finalement état. joxewul dara euh, lu mu indi sax mu ëpp moom lu mu indi. cest à Sénégal li mu indi man tabax na non seulement Pikine euh, euh, Pikine. Diamniadio mais Pikine AIBD suñ ko jaarale si yoon jël prix chinois yi nga xam ne ñoom ñoo liggéey autoroute yi et jóge na wala ñu jël prix n'importe lequel prix yi nga xam moom la ñu daan a defee Dakar Saint-Louis suñ ko si appliqué woon 87 milliards yi defar na Dakar ba AIBD mu des te kenn du si dugal dërëm état mooy pare daal ni su ma neexee ma bàyyi mu autoroute mu free su ma neexee ma def ko péage li ma si récolté ma tabaxee ko yeneen autoroute mais yamul fofu donc dañ ko ko jox mom mu encaisser 87 milliards yi ba paré nak pour egg 148 milliards yi nga xam ne moom laa wax ni moom lay jar cotisé naa. 61 milliards dem lebi 60 milliards dugal si posam parce que su lebee tamit boppam lay fay. dal né nak légui dugal na 61 milliards. donc ambassadeur bi su tekkee fi dafa défé ni Sénégal ñi fi dëkk jànguñu xamuñu fu jant bi jóge dañ naan ay day perte waxul dëgg.

li ma waxoon dootuma si waxati lii biñ ko yëkkatee ñëw indi chiffre yoo nga xam ne man maa ko waxoon en son ñu teg ko sama kanam mënuma ko ñàkk dëggal. mais ñoom seen lettre réponse bi ñu la weddee dañoo dugal seen bopp sax. dañu dugal seen bopp. ñoo dugal seen bopp dugal seen bopp. ñun ñoo dugal seen bopp si lettre réponse bi. te boobu dañ dañ weddi. li ma si bëgg a yokk mooy Pape Alé.